يقول عبد الله وهو أحمد قليل من سمعته محمد يقول عبد الله wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan seen mu Fathul Bichri xam ngeen ne bis bu mag bis bu tedd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 xusuuri xallat wal ahlu an ni tafarraxat waaye li ay këram di wéet wéet li ay daaraam di wéet wéet téewul mu waxan ni rafixi kitaabullaahi wal mustapha nabi yonante bi salallahu taala alayhi wa sallam moom la wéttalikoo waaye alquranul karim moom la wéttalikoo bis booba nag xam ngeen ni bokki taalib yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi rawatina bokk yi nga xam ne ñoo nekk Amérique ànd kook sëriñ Sidi Mbacke yàlla na ko suñu borom yàggal loolu te wéral ko waaye mu ànd ak nag mbooloo mi nga ne mooy mbooloom jaalibatul maraqib ci njiital sëriñ am sotu Mbàkke moom sëriñ bu yàlla na fi yàgg loolu te wér waaye ca bopp mbooloo mooma mu ànd ak mbooloo mi nga xamante ni euh, mbooloo mbooloom ahlu xasida yëpp kuréelu jaalibatul maraqib noonu ma leen ko waxee sëriñ Mourtala Thioune jiite ko ak sëriñ Rijal Gueye waaye ànd ko mbooleem bokki taale bii nga xam ni ñoo yëngu ca réew ma ci wàllu daayira yi ci jokkoo yi ak daara yi rawatina ñi nga xamante ni ñoo ngànk kuréeli xaside yi ñoom ñëpp nag fas yéene àndandoo bis yooyu nga xam ne moom lañ daan def lépp ñu fas yéene àndandoo doon wenn say waaye dëggal ñaanuk Serigne tubaab yi nga xam ni Serigne Saliou Mbacké daan na nañu ko fàttali. yaara bi yaa rabbi ijaalil muridina maan xisnikal asini wasam lañ maa loola waral ñoom ñëpp nag ñu àndandoo doon benn nag fas yéenee dundal loolu nga xam ni mooy liggéeyub Serigne Touba mbokk yi xam ngeen lii dem na xel dina daal di dem ci bayit wu tedd woowu nga xam ne moom la Serigne Touba doon wax raadat idal islami fil jazairi kitaabati qadaytu xaaja saairi nee na dun yëma tukki woon ànd ak tubaab bi muy fu mel ni Gabon Lambaréné ak Bafili ak yu mel ni ñoom sama bind yi tàggat na fa noonu lislaam wulli leen ba moo tax mu jón na ñoom tubaab yi sax sëriñ Tuubaa nee na demal na ba nga xam ne seenu tàggat àggan na ci ñoom sax dañ may duel am ndox may njàpp waaye ndox mi ma jàppee dañ koy barkeeloo waaye sax di tibb bàq be suuf si di ko barkeeloo looloo waral xam ngeen ni tey jii fépp foo mën a dem ci àdduna danga gis ne taalibe Serigne Touba yi ña nga fa di màggal li nga xamante ni mooy bis bu tedd bi nga xam ni muy 21 euh, septembre 1895 mbokk yi xam ngeen ni looloo waral dëkk boobu nga xam ne dëkk bu bakkane la di Las Vegas ñu àndandoo nag fas yéene faa amal bis bu tedd bi nga xamante ni mooy 21 septembre ci mbooloo moo xam ni mbooloo moom wute la mbokk yi loolu nag dana dugal ci baytu sëñ Tuubaa wii wi mu wax ni raddaliet duyuura maa iyaali man xëy xëyebal amira kal aqyaali nee na yàlla mi fàddul te suuxal buur ba ma doon jéemal te mooy buurum ndar Merlin ak Leclerc ma nga xam ne moo nekkan Louga ak mboolem kàngam ya leen doon jàppale nee na buur yàlla mi leen fàddul moo dëlloo siwaat samay kër waaye siwaat samay njaboot njaboot yooyee nag ñoo siwaat di dëggalaat ñaan gi nga xam ne naka jekk moom la suñ tubaa doon ñaan te dafa waxal ni wa addaxalal ilaah fi qulubi man tasababu fi naqli saaka zaman ixraajuhu ila biladi naaiya wa naala fiha fawqa sami saariya fawqa sami saariya nag bokk na ci fu ñu toll di woote ay bis di woote bis yoo xam ne ak ay ngont yoo xam ne lépp lañ ci jublu mooy njukkal sëriñ tubaa ak màggal ko looloo tax sëriñ tubaa saa su ne muy faral di wax ni bis yi ak jamono ak at mi ak weer yi mboolem waxtu yi yëpp sunu boroom jox na moo ko muy sama mbëgg muy sama mbégte wali yahab surura dahri wa bisra kulla sanatin wa sahri wa furxatal ayaami wal waquuti wali tayib maskani waquuti yi bokk yi loolu ab woote la bu matale boo xam ni ku ko dégg di nga xam ni mi ngi jëm ci bis bu tedd boobu nga xam ni moom la ñuy defal Serigne Touba ca Las Vegas mbokk yi kon képp ku dégg woote bi na xam ni bés bii kat buñ ko dee def soxla nag li ñuy wax ñaq ak ñuqi ñaq ak ñuqi nag bu ñu ko déggee kon kenn ku nekk war naa fexe ba alalam dem ci ana nañ koy defee mooy na ko sunu borom waxee wan inna laaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna sunu borom day jënd ci jullit ñi seen bakkaan ak seen alal warul leen àjjana sëñ Ablaat nee na ñun nag sunu jaayante leen wutaleek ñoom mooy sunu jaayante daa jëm suñu giirug dund moo tax kon mbokk yi képp ku dégg woote bu tedd bi woote bu sell bi na daal di jiital alalam nag fas yéene ko cee def ndax na xam ne barab booba barab bu bakkane la kon mbooleem barab boo xam ne dafaa nekk ñu war faa defal Serigne Touba dara barab booba dañ kay def koppar yu bari door koo mën a jot kon kenn ku nekk na xam ni rawatina ñi nekk ci diwaanu diaspora bi na nga xam ne dañu waroo jël seen alal def ko ci li nga xamante ni mooy bis bu tedd boobu te mu jiitu nag ndax ndimbal nag day gaaw te ku ne xam na ne ku defal Serigne Touba loo man mu defal loo mënul ku ko defal loo mënul mu defal la loola jomb te bisa boo xam ne képp koo xam ne feeñ na ca dootul na bu benn yoon kon bés la boo xam ne ñi ngi koy woote di ko woo di ci woo mboolem taalibe yépp nga xam ne kon seen addiya da cee war a teew mbokk yi xam ngeen ni addiya doy na sëkk rek noonu ma ko waxee wan te suñ borom moo ko jiital dañu ñi nga xam ni dañu jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla ñu ngi mel ni ku jël wenn fepp jiko mu am juróom-ñaari gub juróom-ñaari gub gub bu nekk am téeméeri pepp te bu neexee yàlla mu def ko lu ko ëpp sëñ Tuubaa bi mu koy lee dafa wax ni hadiyati laa saaga li xayri yal naayin wal moo billaahu lyoin man saa uhu wa fi xaddi mbokk yi xam ngeen loolu Serigne Saliou mënu ko gën a leeral ba mu leer daa wax ne Serigne tubaa nee na bokk na ci njariñal addiye te addiye mooy li nga jël def ko ngir Serigne Touba day barkeel la bare woon di bare la néewoon di def fu dara nekkul woon kon mbokk yi bis baa ngoog kenn ku ne na ci góorgóorluwaat te farluwaat ci ñu fexe ba nga xamante ni bis bi bu jagee ñu xam ne yóbbaaleel na ma ñu def ko na ko maam Cheikh Rafal daan defee te daa wax ne a ah, murit mur ak murit mooy da ngay nangoo faggu ba pare nangoo fàkku jox sëñ Bàmba xam ngeen ne loolu lépp bu dajee mooy li sëñ ku ñaanal xar hab bi kulli xarfin minha jamaatan xaadimatan wasunha nang ma may arafu xasida wu ne mbooloo moo xam ne dañ koy liggéeyal ba pare di ko ñoŋal kon képp ku bëgg a dugg ci ñaan googu na fexe ba góorgóorlu ci joxe bi góorgóorlu ci teew bi ndax ñaar yooyu mooy sarti murit mooy jàpp ju mooy jébbulu ak joxe sa alal noonu la ko saxaba yi defe woon kon mbokk yi lépp bu maasee day daal di tudd liggéeyu sëriñ Tuubaa te sëñ Tuubaa moo ñaanal ni waqdi hawaaiji la siina daamu fi xidmatin wahab lahum maaraamu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu